à place de la nation Macky Sall md lu nekk la ko fa daadee yàq Bougane Gueye Dany nag Ousmane Sonko daal di koy artu m 2 waat na boppam bu baax a baax dalaat na ci kaw njiitu réew bu Sénégal di Macky Sall jaarale ko ci Ousmane Sonko Barthélémy Diaz fàttewuñu benn yoon ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Bamba Dièye waaye nag Ousmane Sonko artu freiné ki nga xamante ne moom mooy Bougane Gueye Dany ci moomee ndaje gannaaw ba muy wax ci élection gox goxaat bu group des médias gannaaw ba mu jëlee kàddu di woote nag ñu daaldee boolo ñoom ko jég politique gi def benn bloc jëmale li nga xamante ne moom mooy élection locale yi ñu dégmal waaye nag ci saa si la ko Ousmane Sonko daal di yemale daal di koy xamal ni nag m 2 plateforme la boo xamante ni doxul lenn ci loo xamante ni dafa laale ak politique leader bu Pastef ba mu ca noppee dafa tourné ci ki nga xamante ni moom mooy Macky Sall yekk ko lu mel ni xamee li mu ko xamal mooy kenn du ma tere nekk candidat maanaam kenn du ma samp sama ndënd ci élection yi ki nga xamante ni nag moo amul place ci yooyu élection mooy kii di Macky Sall yooyu kaddu nag Ousmane Sonko moo ko daal di xamle Barthélémy Dias tamit yëkkati na ay kàddu koy jagleel Macky Sall li mu xam le mooy atum 2024 élection njiitu réew yow doo ci bokk dem sa yoon ngay def abal ñu loolee Barthélemy Diaz moo ko xamle yooyu kàddu nag mu daal di koy jagleel président Macky Sall keneen koo xamante ne bokk na ci mouvement M2D di Cheikh Tidiane li mu xam le mooy askan bi nekkatuñu nag di résister waaye nag dañu rek offensif